asalaamaaleykum mbokk internet bi bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare indiwaatal leen seen yeneen i xibaaru Actu Net ñu ubbee suñu xibaar ci naqar ak ginnaaw taw bu metti ba amoon démb fii nii ci ndakaaru Njaay mais li ci gën a metti mi ngi xewee fële na le ci Bambilor benn xale bu am 8 ans at ku toll ci 14 ans ñu ñoo ñàkk seen bakkan ci biir ndox mu le mu nekk loo xamante ne ñoo ngi koy naqalu te di leen jaalee seen fan famille ñuy wéyal suñuy xibaax ci sene Sénégal FAO ak Tigo ñu doon utilisé illégalement les images des lions maanaam di ko def pour ay publicité mu nekk loo xamante ni fédération des sénégalaises de football ñu jóg ci bu gaaw porter plainte ba jamono yi ñuy wax ak saay bu ñu yeewoo ñoo ngi war a verser lu toll ci 100 000 francs loolu. ñuy wéyal suñuy xibaar ci Seneweb muy xëy di fësal euh, cantaakun yi ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Serigne Saliou Thiour ak ñi nga xamante ni ñoo ànd ak Soxna Aïda Mbacke ñoom de ñoo doon xeex ko waral soxna Aïda Mbacke ñoo demoon kër Serigne Saliou Thioune doon fa jël benn kan kan boo xamante ni Cheikh Béthio Thioune moom moo ko moom ba tax na ñu nekk fa di xeex ba pëlis ñëw jot a teg loxo lu toll ci juróom benn cantaakoon dinañ ci dellu siwaat jeexalee suñuy xibaar ci ama neex moom mi doon ñaan dimbal Macky Sall lu ko waral mu dimbali kii nga xamante ni moom moo di Mbayang Diop mi ñu condamné fële na lee ci Arabie Saoudi parce que dafa faatoon bakkanu patron na mu nekk loo xamante ni nag boobu ba tey mu ngi ciy kaas te yëgal président Macky Sall que ni que le bi ñu ko jox mooy que ni ay doomam bu ñu màggee rek moom war nañoo mën a jël bakkanu kii nga xamante ni moo di Mbayang Diop laata loolu muy ñaaxaat président Macky Sall mu jàppale Mbayang jóob bu baax parce que neexul jàkkaarloog sa yaay ñu koy jël bakkanam ngay koy gis ci ci kanamam mbokk yi fi la ñu yem ak yéen ci seen xibaaru Actu yi te di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah. ay appartement de classe appartement meublé yu mucc ay fële ca Jàmmalay virage près de la plage wedeen prolongé jàkkaarloo ak géej gi wuy loolu yow séjour minimum ba trois jours dong la am nañ tam ay salon ak ay balcon privé ay coin à manger deux chambres à coucher climatisées plus de salle de bain intérieur extérieur télévision écran plat plus de cent chaînes ay cuisine équipée yu mucc ay sax connexion wi fi gratuit possibilité de restauration bu am jom